ndax dañ may rendre compte automatiquement ma ngi yéen ci yem dafa am loo xamante ne nekkul ci sama loxo mooy sama kaaraange dafa am ñoo xamante ne seen responsabilité la am na loo xamante ne seen cër googu mënuma leen ko deflu ndax kon bu ci défaillance amee peuple sénégalais dina leen ci ngañ fii Dakar chaque jour ma génn fi bu demoon ba saa yu may génn ku ñu ne taxawal ba président jàll nga ne président day doxi soxlaam damay doxi sama soxla kon man mii askan wi yónni di ma xaar te yàkkamti ma dinaa tardé te sama responsabilité moo ëpp ci réew mi kon taxawal xaar président génn ci foo xamante ne am na déjà jafe-jafe déplacement ndax inondation la nga bëgg dem seeti jay sinistré yoo xamante ne maa ngi doon dem ci boor boobu kuñ ko wax wala digg yàlla war nga mën a xaarandi tuuti te maye loolu ba ñu dem lenn rek a ma metti mooy dem naa gis naa condition yi nga xamante ne ci la ñi nekk ci région Kédougou ak Tambacounda di liggéey muy force de l'ordre muy armée bi muy askan wi jafe-jafe yu mu nekk waaye muy tamit administration territoriale ba mu tax acteur politique yi may doon woo nañu fàttaliku ne kër dañu am responsabilité boo xamante ne exemplarité la war a nekk ci respecte charte yoo xamante ne bu ñu ci tonkulee jéeye mën na am musiba mën na am ku ni xam na fu président dem dëkk ji dina am ay mbedd yu ñu baare waaw bu ñu baaree ay mbedd am ndox moo xamante ne kenn mënatul doxee nu mu nu mu la neexee président nekk fa ay convoi yu gudd na ma ko yàlla baal ndax autorité régionale yëpp dañuy dañuy génn muy préfet muy sous préfet topp sama ganaaw ak ñeneen ñi ngay ñëw bëgg a dugg ak convoi bu gudd bu ñu la ne xaaral ba président génn li nga war a nangul maintenant yoon def liggéeyam man kuma andil kaamil ci saa su ne naa la mën a waatal ne que man du ma gàllankoor yoon ndax loolu laa waat ci kanamu sénégal yi saa ñu ma interpellé jox ma information que dara xew na ci wàllu yoon benn attitude laay am def leen seen liggéey donc ci loolu laa ci mën a en attendant présomption d'innocence la am yoon dina def liggéeyam yaakaar naa ne bu dee moom luñ koy jiiñ amul yoon dina ko bàyyi nu mu ko bàyyee woon bu mu ko woowee te bàyyi ko bu defee nag yoon mooy wax ne def na mooy xool tamit lan lay teg ci kawam waaye man ci sama bopp li ma koy ñaanal mooy ay jafe-jafem gaaw a jeex ba mu delluwaat ci njabootam. Merci beaucoup, Monsieur le Président.